Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak Equivox TV comme nag ñu koy defee saa su nekk dañoo wàccaat sur le terrain ngir waxtaan ak sénégalais li ñeewal wàllum coronavirus bi nga xam ne dañoo détecté premier cas bi tey fii ci Sénégal bu ko defee rek ngeen daal di topp ma. ok euh, ginnaaw euh, li nga xam ne moo di virus bi di coronavirus dugg see ci biir Sénégal ñu yëkkatee ci suba yow lan lan lan moo ci euh, sa waaw waaw betteel la pratiquement moom daf ñoo bett quoi mais tamit mënoon na nekk loo xamante ne lu ñu waroon xaar la tamit parce que comme euh, nit ñi ni ñuy demee ñëw si dëkk bi noonu xama ah, mënoon nañ xaar ne à tout moment xama mënoon mën na ñëw si dëkk bi daal xama te fi mu toll nii comme ñëw na daal xama dañuy jéem a xool ni ñuy jéem a prudent wee si lépp lu nga xamante ne dañuy jéem a fexe moytu ko comme xam nga feebar bu ci nekk ak lépp loo gis ci àdduna dafa am lu muy laaj day am ay tere ak ay ay ay ay ay lu loo xamante ne mooy tax ñu bàyyi daal xam nga lu ma la loolu daal ñu jéem ñu jéem ci daal taxaw fagaru daal def lépp luñ si mën xam jëm jéem ci des moom ñu teg ko ci loxo yàlla parce que xam naa ne xam nga moom li mu ci moom moom kenn mënu ko ci daal. ah xanaa tiit naa d'un côté daal tiit naa mais d'un autre côté xanaa dañuy ñaan yàlla rek mu musal ñu ci si maladie bi ñëpp après sénégalais yi gën a fagaru genre yooyu noonu. bon ma ci am mooy. nañu premièrement nañu jël suñu motuwaay parce que Sénégal moom euh, yaakaaruñu woon ne coronavirus bi dina fi yegg si ndax ñu ngi doon dégg ci yeneen réewu tugal yu naan coronavirus coronavirus mais mosuñu xalaat ne dana yegg si fii mais comme am nañ information bu jot ne moom yegg si na fii li ma ci xalaat daal mooy ñu jël suñu motuwaay mooy maanaam di raxasu ak euh, eau de javel ak euh, saabu Euh, éviter aussi dugg ci bus yeeg yooyu surtout tata yeeg yooyu comme ñun dañuy jaxasoo ak nit ñi moom foo ñu éviter loolu léegi nag li ci des mooy euh, hôpital yi nañu jël seen motuwaay ñoo xam euh, hôpital bu ñu ko yegee ak bu ñu remarqué ne foofu la coronavirus bi amee ñu xool naka la ñuy régler cas boobu nga xam ne dinañ mën a jël waa ji daal am benn quelque part bu ñu ko teg bu mën a def faj faj beek yooyu donc li ci des moom. mooy jël matuwaay bi parce que léegi rek maa ngi dégg sama benn xarit information bi sama benn xarit laa ko dégg euh, ñaareel ba aussi ñuy takk masque yi ndax temps yi passé génnee woon nañ fi masque yi ci ngelaw li nit ñi naan ngelaw li ngelaw li ngelaw li dañu yaakaar ne sax ngelaw loolu moo war a indi sax coronavirus bi mais bon xëy na mbiru yàlla la ndax euh, nee nañ benn tubaab benn français moo ko fi indi mu ngi woon ci Air Sénégal information boobu ñu ngi koy am et tout donc euh, nañu góorgóorlu daal. Sénégal. pour man nag genre yàlla baax na vu que mënuñu ci dara mais yàlla def lu gën parce que fii moom dëkk lislaam la. waaw yëg yéeg boo xam ni moom comme ni ko sénégalais yi rek waaw muy yëg bu xaw a tiis xaw a metti parce que buñ sañoon ni dañ koy dégg ci àdduna bi rek mu bañ a agsi Sénégal sinon sax mu bañ a dugg fenn ci benn réew quoi parce que yéenewuñ ko kenn wax dëgg yàlla sentiment bu bu doy waar la daal waaw waaye nag ñi ngi ñaan yàlla rek ah yàlla yemale ko fi. benn cas bi nga xam ne dégg nañ ko fi ah ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla yemale ko fi waaw te mu bañ wàll kenn daal. bon en fait euh, je me dis que il n'y a pas à se paniquer c'est c'est un cas qui est s'avéré positif et je suivis euh, les autorités ils ont pris toutes les mesures à ce jour le le le malade il est en quarantaine déjà et deuxièmement euh, toute personne de bonne santé est un malade qui s'ignore Donc nous avons d'abord des maladies en nous déjà, parfois plus le coronavirus. On a le vih qui est là, qu'on doit plus combattre. Voyez-vous Donc le corona, c'est une maladie qui, frappe plutôt euh, au niveau de l'Asie. Et ici, les cas sont très faibles. Au Sénégal, à ce jour, c'est un seul cas qui s'est présenté. il n'y a pas à, se paniquer. Il Nous connaissons les Sénégalais, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui di rax sa loxo tout temps parce que xam nañu musulman dañuy jàpp lu bëri waaw ah, tiit naa trop nag waaw. ah ñun ñi ñun ñi suñu bopp ah ñoo war a gis suñu précaution rek ah ay nit moom foo mën foo mënta nekk da nga war a set waaw loolu la. set daal mooy li nga xam ne set ba pare moytu il faut être méfiant loolu kese la. Oui, mais au niveau, j'ai été à AIBD, au niveau de AIBD, le dispositif est en place. Si on a pu détecter ce cas, c'est parce qu'il y a un dispositif en place. Donc si les autres cas ne s'avèrent pas positifs, c'est qu'ils sont négatifs. Et comme ils sont négatifs, ils sont bien portants. Donc il n'y a pas à s'agiter. J'ai vu tellement sur les réseaux sociaux, les gens s'agitent comme si c'était la fin du monde, alors que c'est une simple maladie qui peut être euh, soignée. Voyez-vous Donc on a plus de maladies que ça, on a le cancer, on a le VIH, ce qui est plus difficile que le coronavirus. waaw message bi may lancé Sénégalais mooy ñu jéem a sensibiliser wu rek xam jéem a xool bu baax xam nga suñu dundin xam nga suñuy nekkin xama nga jéem a xoolaat bu baax suñuy wàllu set xam nga jéem a def lépp lu ñuy mën loo nga xamante ne dina tax daal feebar bi daal ñu jéem a daal def si lu ñu si mën daal pour jéem a aar suñu bopp li si des ñu bàyyi ko si loxo yàlla. waaw waaw waaw loolu moom loolu moom la moom mais boo xoolee fi Sénégal boo xoolee daanaka moyen yemul xam nga am na ñoo xamante ne mën nañ jël taxi wala ñuy yor nañ seen oto mais am na ñoo xamante ne bi ñuy liggéey wala ñu war a jàngi mënuñu def lenn lu dul xam nga daal di yéeg si taxi yi daal di yéeg si bus yi wala tata yi consort yooyu parce que seen loxo moo toll foofu daal seen loxo foofu loolu loolu la ñu mën a def pour mën a dem soit ñu jàngi wala ñu dem liggéey wala ñu dem ndox seen ay soxla te gannaaw ba xam nañ ne loolu moom pour nga tere ko fii nit ñi moom dina difficile trop trop trop trop trop pour nga pour nga wax leen ñu bañ a jël bus yi wala tata yi moom dana metti moom vraiment loolu d' accord loolu li ma ciy lancé mooy avion bi nga xam ne foofu lañ euh, découvrir ne feebar bi foofu la euh, cas bi jóge man su ma sañoon ñu jël avion boobu nombre ba fa nekk yëpp ñu consulter leen xam réellement ndax feebar bi ci waa ji la yem wala ci yeneen gaay yi egg na ci yeneen gaay yi parce que comme mu ngi woon ci avion bi di respirer ak nit ñi kenn mënul xam ne ndax moom kese moo am feebar bi donc avion boobu moom dañ ko war a ber carrément consulter ña fa nekk ñëpp. képp ko nga xam ne amul coronavirus bi ñu xam ne amu ko ñu bàyyi ko képp koo xam ne moom am na ko ñu jéem a xool motuwaay bi faj ko ndax maa ngi xam ne Sénégal moom faj bi ah, euh, kii faj bi euh, développé na fi waaw ndax euh, Ebola bi mu fi njëkkee yegg si pratiquement médecins yi ñoo ko fajoon te loolu jaaxaloon na ñëpp donc ñu ngi ñaan daal loolu ñu jël motuwaay boobu. man kay man kay dama tiit carrément. léegi laa ko dégg ci téléphone ci kaw mais sama fit bi dafa dem. <laughs> ah damay damay lancer message que comme genre euh, nu tëddee sax euh, yàlla comme genre moom comme genre yàlla comme genre yàlla kii ñu euh, musal ñu genre après ñu ñaan yàlla di julli loolu noonu rek moo ñu gën a mën a musal si kii bi. je lance un simplement un message d'apaisement à ne pas s'agiter euh, j'ai vu les gens vraiment troublés sur les réseaux sociaux sur euh, WhatsApp et autres s'agiter mais il n'y a pas à s'agiter je pense que c'est une maladie qui est là Mais euh, les autorités, j'ai vu aussi, j'ai salué euh, vraiment l'initiative, ils ont pris toutes les mesures déjà pour ça. Donc il faut simplement suivre les mesures de précaution, se laver les mains, euh, prendre en fait tout ce qui est hygiénique euh, en compte. Appel bi may lancé mooy sénégalais yi nañu fagaru rek bon euh, précaution yi nga xam ni ministre santé joxe na ko ah ñu jéem ko wéer rek yokk set gi waaw ak moytu rek waaw ah, mu baax a baax bu ko defee rek yàlla mën nañu dimbali ci kàttanu yàlla incha allah. voilà chers téléspectateurs ñoo ko gisandoo li sénégalais yi wax mooy nag tiitaange tiit rek moo leen jàpp fi mu toll nii tey ñaan rek gouvernement bi mu jël ay mesures am ba mot sëkk ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer ce pouce bleu pour liker.